loolu nag di kàddu yi tuuma di kàddu yi duur di kàddu yi yoo xam ne dara wéru ca te sëriñ bi moom saa boo jógee ngir di ko sikkal day mel ne danga ngaa indi sàbboo ko fóotaale ndax suñ borom moo ko xas seetal ba noppi nasahanil baaxi min al askaali bi jaahi maahin xadmaha askaali leetar bi nga xam ne nag moo ko bindal boppam moom lañ leen di bëgg a indil fii ñu xam ne moom fii la nekk دفو بسم الله الرحمن الرحيم الى كل من لم يعلم بامر كاتب هذه الحروف سلام لائق به اما بعد فان كاتب هذه الحروف لم يظلم الله تبارك وتعالى ولم يظلم رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم ولم يوجه الى احد بعون الله تبارك وتعالى وبجاه رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم باطلا منذ عقل فاليوم يريد أن ينبه كل من لم يعلم بأمره تنبيها لا يكون بعده سك الله تبارك وتعالى ربي وسيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم نبيي ورسولي ووسيلتي إلى الله تبارك وتعالى والقرآن دليلي وهدايا والإسلام ديني والكعبة قبلتي والله على ما نقول وكيل دفا mi ngi jëm ci képp koo xam ne xamut mbirum ki bind araf yi maa ngi koy nuyu nuyoo ba yàlla ci moom gannaaw loolu ki bind araf yi mi ngi xam ñëpp xamal ñëpp ne musta tooñ yàlla ci bokkaale koog dara moo tax mu wax ne allahu rabbi wa alallahi tamat kulli bila shirkin wa xabasa samat sahidtu anna allaha rabbul xalqi wa anna ahmada rasulul xaqi maa ngi seede ne amul benn buur bu dul yàlla maa ngi seede ne yàlla mi nga xam ne mooy kenn ki moo bind ñëpp mooma moom rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam mooy sama yonante mooy yonante bi nga xam ne moom la yónni ci diini dëgg ak ci aw yow ak njub ne mi nga xam ne ba tey ne mustason yonante bi sallallahu alayhi wa sallam ci rax dara ci sunnaam mbaa mu ciy dugal lu ci bokkul mi ngi xamal ñëpp ne musta jubale kenn tooñ googu waaye loolu lépp nag mi ngi amee ci ndimbalul sunu borom ak ci darajey rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ba mu xàmmee ba tey tey nag daa bëgg a yee képp koo xam ne xamul mbiram yee goo xam ne sikk sàkk dóor ci nekkati mbaa muy mbaa lu muy laajte ji li muy yeete nag mooy mi nga xamal ñëpp ne yàlla rek moo ko moom mooy su mooy boroomam sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy ab yonantaam di wasilaam bi nga xam ne moom la doxale suñu digg diggam ak suñu borom alxuraan ji nga xam ne moom la sunu borom wàcce ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy tegtalam lépp lu muy def ca koy niitoo mooy ak njubam lislaam ji nga xam ne moom la sunu borom wàcc ci yonent bi ngir ñu jaamu ko ci nee na mooy diineem kaabe nga xam ne foofu la ñëpp jublu mooy xiblaam lii ma wax nag nee na yàlla seere na ko liñ ciy dolli rek moo de loolu kooku wax kàddu yi tuuma la yoo xam ne ci noonu rek la bàyyi ko fexe ba kenn du la tuumaal nag kenn mënu ko ndax yàlla mi nga xam ne mooy borom asamaan di borom suuf bind ñëpp moom ñëpp sàkk ñëpp jox ñëpp am na ñu ne walla waladan di ko sàkkal ay doom ak i soxna te loolu fuñ ko ko waxee rek subhaana la cay teg ngir sori gum sori loolu ñu koy dendaleel kon kooku waxul kenn lu dul luy jariñ bindee fi muy ñu wéetal ko jàppe ko lam doon muy muy muy boroomu aras ki nga xam ne moom moom ñëpp bindi fépp ginnaaw kooku muccut ci ay tuuma muy yónni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom ñu sikkal ko mu yónni kon nag képp koo xam ne ay tuuma ñëw na ci sa kaw da nga xam ne kenn mënta mucc ginnaaw yàlla mi sàkk ñëpp mucc mucc musul ci boppam musul ci ay yonentam kon kenn mënta mucc sëriñ bi nag mbiram dafa leer ne ab jant ndax lépp loo fob ci tuuma jëme ko ko day mel ne danga nga koo ko da nga koo bëgg a seetal ab deram te yow yëgoo ko moo tax mu wax ne واجهت أبكار سكوري للحميد ولم أكن بمشرك ولا أميد نانا سما لب جملان جملان جملانا كوتي سونو بروم تا فاسيني تامبلي نك تيانت يو بيس تاك جيمي كوتي موم تاي دوما كو بوكالي موك تاي دوما مير باي واخ لوما ورتا واخ لولا نك دا تا بوك ابدا ان شاء الله تعالى كون نك ميب مبولو مو جيس دانا ام نيو تي ابل ñoo xam ne dañuy lañ la ñuy wax kenn wax lawu leen ko ndax Seydina Isa waxut kenn ne may doomu yàlla waxut kenn ne Mariam mooy mooy mooy mooy leen ci sunu borom loolu ab jaamam moo tax ba ko sunu borom ne yow Isa yaa wax nit ñi ne leen yàlla laa maag sama yaay mu ne ko man de nekkuma di wax loo xam ne nekkul dëgg bu fekkee maa ko wax xam nga ko ndax yow dara ump la la nga ma waxoon rek laa leen wax muy nañ jaamu yàlla mi ma moom moom leen te ba ma koy wax yaa ngi koy seere di ko fekke ba nga fa jëlee nag yaa fa nekk ndax yow lépp nga teewe li am daal mooy boo leen mugalee yaa leen moom boo leen baalee nag sa tedd nga ak sa xëriñ daj na lépp sëriñ bu mag bi nag moom buñ toogee fii di ko layal moom bind na bind na aw layam njëkk ñu koy ñu koy ñu koy ñu koy layal ndax boo demee ci xasida yi rek mboolem luñ ko tuumaal rek yow da nga ko weddal sa bopp te kenn du la ko wax kon nag ñi nga xamal ñëpp ne moom sëriñ bi fii mu nekk mooy mooy lii mooy jaamu yàlla la bind ne moom la bind na rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam moom mooy wasila mi dox a diggam ak yàlla leneen lu ci nit wax nag nit ku ëppal la kooke nag kenn du sukkandiku ci ay waxam nit boo ko bëggee xam da ngay dellu ci la mu bind nga xool ko ca waaye sëriñ bi moom lim bind leer na nañ kenn mënu koo tuumaal yàlla nañu yàlla musal ci pexem noon yàlla nañu yàlla musal ci ñiy fab ay dóor de ko teg ci kaw yàlla ak yonent bi ak nit ñu baax ñi wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.